salaam salaam maa ngi nuyu gaay yëpp di leen ziyaara di waa épisode bu dem bi neex na neex na maîtresse d'un homme marié en fait sénégalais yi ñu ngi koy consommer bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nekkul sax sénégalais yi bëgg nañ ko bëgg nañ ko trop trop di ñaan yàlla mu gën a dem ci kanama kanam ngeen am si lu kawe seen jotu daal ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax lépp lu ngeen si mu nekk mbégte ak bànneex kese ñun daal ñu leen di encouragé bu baaxa ba di leen ñaanal jàmm fu ngeen mënti ne parce que yéen a ngi yéen a ngi soulager doomu aadama yi que li ñu mënul woon dund liñ doon dund te mënuñu ko woon partager ak doomu aadama yi yéen may ngeen ñu fit daal may ngeen ñu fit ñu ngi leen di ñaanal jàmm yokk ba yëg ko fu ngeen bëgg egg yal na leen fa yàlla ay gale incha allah ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax man leen rek moo ma ci xaw a tuuse jari jalika méritéwul lii pour man méritéwul pour que muy dund ay métit pour man meilleur amim di ko ko teg loolu dong moo ma ci xaw a tuuse si épisode bi passé nii mais à part ça moom lépp tranquille lépp nice na moom yal leen yàlla defal jàmm bu baax a baax ma ngi leen di kontaane di leen bégee lu bëree bëri ah beneen bi maa ngi ziare Jalika bu baax mais Jalika sama fans la voilà kooku moom moom mooy sama fans si kii bi mais li muy li muy nar a souffrir si biir film bi du ko mérité quoi parce que ay problème yu bëri moo ko nar a dal si film bi loolu moom mérité ko quoi nu xoolaat boppam bu baax a baax. asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziare bu baax quoi amee ah, série bi mu neex na trop. ñu ngi koy seetaan série ñu ngi koy seetaan waa di si def suñu participation rek parce que gis nañu nii ku mel ni Marème dafa war a def attention bu baax a baax a baax parce que jigéen du fajal boppam si néegu sëyam boo nekkee si biir néegu sëy bu neexee neex na bu naqadee nga ni naa ko fajal sama bopp loolu lay Marème di def te da koy yàqal bu ëllëgee na moytu bu baax a baax si loolu beneen participation bi may def mooy euh, maire bi loolu mu def dafa juum parce que sa doom bu xasee ba takk nu mu munti demee rek bokk na si famille bi kon nag caga boobu moo boobu waroon na ko mën a bañ a wax daal xam nga parce que bokk na si famille bi noonu la demee. salaamaaleykum waa maîtresse yéen ngi ci jàmm. ah li ngeen di liggéey de moom neex na ma te rafetlu naa ko torop torop macha allah di leen ñaanal rekk ca kaw ca kanam waaye nag may wax ak sénégalais yi sénégalais yéen métti ngeen ne xeme ndax te làll mii ñu ñëpp ay jigéen lañu képp kuñ fi takkal wujj di def lu raw li làlla def ndax li gën a metti mooy sa jëkkër indi gel sa digg lal dem ba takk gel boobu Marème Diallo moo war a noppi tuuti nag moo muñu laal la ci ay droit am rek la ne laal la fa mu toogoon ba tey ma nga fa waaw coow li coow li mooy Marème Diallo mi nga xamante ni dafa ñëw pour jaxasee kër jàmbur gi mais laal la ak Cheikh Diagne ñi ngi woon ci jàmm ñi ngi woon ci salaam kenn mësu leen a dégg Lalla lu neex seex rek ki la daan xëy di dox suba ba ngoon jot mais ñun ñëpp ay jigéen lañ tey ñun ñëpp ku Sénégal dañuy dig la ca ngaatu duñ sangu surtout sama mbokki jigéen ñi laay waxal ngeen baal ma kuñ ci takkal wujj yaa ngay rappi rappi di daf di daf tafi léegi nag ah wax ñëw ngeen jénn waa mare kii euh, Lalla dafa war a def lii Lalla dafa war a def laa lépp ngeen jël xëpp ko Lalla mare jàll mi yammi ñammi na du ngeen wax ak moom ma ni xoolaat leen seen bopp yi xoolaat leen seen bopp bu baax a baax ñu ñëpp ay jigéen lañ mujj neexul de mujj neexul de ah, maa ngi leen koy waxal nag yow nag rakki nag mere naa la trop ndax sa yaay jooju bu la ne woon jël sa loxo bi doo ko sa taal bi doo ko ci dugal mere naa la trop beneen bi mooy biram xaritu euh, lalika bi mu bëgg a takk kookit def na tojaange ba pare bëgg a topp nit ki bëgg koo jooy loolu mooy dëmm ma la jaale la bu mu ñu fat def na li ko neex daal amul dimbali kenn dafa def li mu bëgg a def magum jëmm la waaw film bi daal neex na ku ne gis nga ci sa bopp di leen ñaanal ca kaw ca kanam waaye na dama bëgg nag sénégalais ngeen ñaan laal la wàcc laal la man de yaa ma saf yow laa àndal ca kaw ca kanam Marème Diallo damaa bëgg nga puus fële te nga rek la ngay ñammi ñammi noonu laal la Marème jàll bu ñëwee sëy si bu loo ràccalee jàmm ràccal ko ba mu saf bu leneen nga ràccal ko wujje ba mu saf sàpp looloo fi am ñu kenn rey ñu Sénégalais lool la ñuy dund xamante ne ñëpp jigéen ñi suñu biir. asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié ci leen ne maa ngi si jàmm ah, film bi moom tey dama bëggoon wax ci maîtresse ndax man dama koy seetaan tout le temps premier. yépp commencement bi yépp dama koy seetaan mais man daal mareem daf may daaneel mareem moom dama ko bëgg sama biir xol mareem moom daf ma neex torop ndax mareem dafa xàppi dafa firi mareem dara safu ko lalu daal yërëm naa la ndax mareem mi nga nara a wujjeel nii dara safu ko man yaakaaroon naa mareem su ko lalla téye jour bu ko lalla téye këram su paree day bàyyi Cheikh lem ay dàllam te tey si la gën a téye Cheikh Marème daal dafa gëm boppam man daal bëgg naa jigéen bu gëm boppam te Marème dafa gëm boppam Marème moom dara safu ko Marème moom neex na ma torop macha allah film bi moom neex na torop. asalaamaaleykum wa maîtresse ñu ngi leen di nuyu di leen char waay bëgg nañ leen torop ah, numéro bi moom maa ngi ciy jëlee si YouTube bi rek laa ko jëlee mais jëri bi neex na torop. théâtre bi neex na trop trop waaw macha allah Cheikh Diagne Marème waaw laf cat waay Marème laf cat Marème waaw nees bii dëgg yàlla moom série moom bokk na si moom bi may faral di siifar moom bii moom neex na ma trop trop trop waaw waaw ay Marème dafa wax yi muy wax dafa naaje sul affaire yooyu Marème li muy wax dara ñëw ci dafa jonge rek Marème jigéen bu jonge la waaw li muy def moom. macha allah ku soñoon moom am am am am soxna su mel noonu moom waaw parce que théâtre bi euh, série bi instant bi nii man naa ne man damay maa ngi soxna sax mais dama am ku may génnal nii dama koy nëbbu sax sama jabar man dama koy nëbbu mais ins bii daal Cheikh Diagne tax na ma am fit daal man nëbbootuma man man nëbbootuma da fi mu toll nii sama téléphone lépp dama kaa defoon code mais damay dindi code bi lépp bàyyi noonu waaw bii daal mooy loolu daal série bi neex na trop trop waaw macha allah ci kaw ci kanam waay. salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ku ne sa tur ak sa sant yii Marème tojati nga fi tojati nga fi Marème tojati nga fi man Marème moo may daaneel waaye yéen lan la yow da nga mujj yambarti ay lan la lan la yambar waaye nag wax na dëgg lan la nag kenn du sàcc ay. ba Cheikh ñëwee pour reer nga ko waroon a wax demal ayewoo fi bàyyi ba nga aye fi ñu invité gan yi loolu mooy dëgg kat laal la bu ngeen di joxe exemple da ngeen di xool ni ngeen koy joxe ngeen xool bu baax li ngeen di def loolu mooy dëgg waaw moo tax Marème ndax Marème tamit bu dul woon li ko Cheikh tontu du ñëw ba foofu li Olof Njaay di wax ni wax bu neex sarax la bu ne ko woon maa ngi ñëw wala dama am kan kon Marème du dugg foofu Cheikh tamit yow it defal très attention des fois yow yaay jaxas sa kër Cheikh mais Jalika ay Jalika Jalika neex nga ma neex nga ma trop trop trop trop waaye tamit sa xarit bi sa xarit bi lim nar a def ëpp na man de lii ku ma ko def ma dee ku ma ko def ma dee laa la wax dee laay def waaw wax dëgg yàlla man bokkuma ci jigéen ñi ko bëgg dëgg la nañ bëggeel dina dab ku ne. ku ne dina la dab mais tamit xarit warula la jaral yenn yi xarit jëkkëru xarit warula la jaral yenn yi doonte tas na sax du lu rafet rafetul ci gis-gis rafetul ci feneen waaye mareem nag toj nga fi ah mareem mareem yaa may rey yow rekk ci ñaareel xaritu jëkkëram yaa may rey mareem toj nga fi mareem mareem neex nga ma trop trop gis nga yow bu dul yow film bi du neex ñu ci dindee rek du neex sëy bi sax buñ ko tasee film bi neex nañ ci ba sëy bi te nga dem sëy nag demal nga sëy boo demee sëy foofu lay film bi di dàqe te nga respecté nag laal la tuuti respecté ko tuuti rek sama xarit nag <laughs> laal la yow moom yaangoog rek da nga mujj say say salañ salañ sax dalaa mujj réer Marème dafa yóbbu sa film ba say salañ salañ réer la <laughs> asalaamaaleykum damay gis juste joxe sama xalaat tuuti si seen série bi neex na trop macha allah euh, juste euh, Mariam laay kii tuuti rek parce que ku jóg rek wax waaw euh, Cheikh sa caga bi noo Mariam du caga parce que moom Cheikh daf ko takk donc léegi moom avant peut-être takku ko daf ko doon doxaan te jigéen bu ne aussi foofu la jaar da lay doxaan ba takk la donc foofu daal man laa contre bu ñu koy wax waaw ku jóg yëpp sa kër caga bi loo koy def sa kër caga bi. jëkkër jëkkëram léegi Mariam jabaram la moom jëkkërum jëkkër la donc caga nekkatul foofu franchement parler donc ngeen jéggal ma loolu rek laa doon wax sinon laal la man moom laala laa faral en général parce que laal la moom tey na amul benn problème moom tamit donc voilà. <laughs> nga ko dugg di participer nee na Mariam li may def ñaawal na ko si nga góor ñi ku leen bàyyi ci lu leen neex dañuy tukkal àdduna bi. gis nga jéeg li mu moom jox ko ko même bu tombeek dafa nekkee xare ba daal sax dinaa la ko jox déggoo ma de gis nga li nga moom jigéen na kaama xamal la mën na accepter lu nekk ba mu des nga jël ayam jox ko beneen jigéen parewu ko ci biir mi réew mim réew benn jigéen nangoo ko benn jigéen baaxew ko mën na laa mën nga koo saaga ndey mu jël mën nga koo def lu nekk mu jël mais ay eh, ak góor rekk <laughs> góor rek la ma ca xam kii lu ko daal salaamaaleykum gars yi ngi leen di lu bare bare bare man daal ci àddina dama bëgg xale bu osé xale bu capable man daal Marème daal man j'aime billaah li nga moom dañ koy jël amee te doo ko bokk ak benn jéeg kanaa du Marème man wax naa ba pare ñaareel day féroce ni yow man di awala waaye ma billaay sama tànk nga jaar dangaa féroce ni man man déjà man lépp lu ma moom dama naan ko ñeex amee bu ma ci paree na nga xam ne moomeew ma sama yoon nekk ci su ma la rombee du ma xam ban couleur yére nga sol mais sama bés bu ma moomee eh du ma ci maye virgule duma ma ci leble centimètre te lu ma ci waay fay lu ne ma jël bokk sama sàkk. salaamaaleykum salaamaaleykum waa maîtresse maa ngi di nuyu di leen ziare di leen sant bu baax alhamdulilah di wax tamit maîtresse euh, macha allah neex na trop neex na trop waaw ku ci nekk. nekk war nga xam li ngay li ngay def Marème nag mu ngi def wàllam euh, ci maîtresse de Nomalia ànd fu la trop euh, fi nga ko jàpp foofu la Marème di la wax ni la jàppal ba mu dëgër bu dara dara dara tax a bàyyi Cheikh Diagne dara tax a waaw. man nag chaque jour dama koy seetaan su ma ko seetaan ci télé bi dama koy seetaan ci YouTube bi du ma ko tardé dipp ba mu commencé ba léegi du ma ko tardé ñuy di wax tamit naa maîtresse nañ ko teggi ci télé bi chaque jour ñu ngi dund lu gën a piir te waxuñu ko novelas moo gën a bon lu ne lañ fay teg te dañ koy seetaan kon dama jàpp ni maîtresse bu dawee dafa war a daw am na lu ci nit yi war a jàngat bu baax a baax a baax daf ñuy yee bu baax. man mii daf may yee bu baax keneen ak keneen daf ko yee kon doomu aadama yi nañ xam li ñuy dund te mag yi di wax ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk xam nga lu jaadu ak lu jaaduwul te fii kenn du fi leeral de yàlla rek moo leeral parce que dañoo bañ ba ne kullu nafsin saa xeetul mawt ba kenn du ñam dund di nga ñam dee te yàlla dafa wax ne inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu kon bu ñu déggee loolu ci alxuraan ku nekk war na jàpp ni novelas moo gën a bon bokkul ci suñu aada te dañ koy toog mu jaral ñu ñuy togg suñu añ muy xëm mu jaral ñu ñuy yàq suñu cin di ko tuur kon tamit dama war a jàpp ni maîtresse ñu ko seetaan yi war nañ ko seetaan parce que si ñun la bokk suñu famille la waaw kon boog loolu laa amoon ci lu may wax wasalaam kàddu yi ci beeg bu dëngeeg yëpp ngeen daal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen yéen ñëpp waa Xew TV di kontaan bu baax man nag maa maa ngi koy suivre bu baax a baax dara rëccu ma ci di kontaan bu baax nag ci initiative bu rafet bi nga xam ne moom ngeen am ah di wax rek ci Marème li mu def ko ndax nit boo bëggee ñu la da ngay yem ci li nga xam ne yaa ko moom wujje dafa sensible. bu kenn ku ne yemee ci li nga moom problème du am nga ñu baal ma nag góor ñi ñoo tas seen kër yi ndax xam nga ni ayewoo ca lal toog fa ñiy wax ñu lay woo téléphone ngay gëddaate fan la tege loolu fan la ko Cheikh Diagne teg Marème bu demutoon keroog laa koy bàyyi man keroog laa koy mere ni mu def naaw naa ko ci bu mu àggee kenn ku ne teg na la sa place te dépassé wu ci kenn nag dépassé wu ci kenn nag. am na fulla fulla ji mu am ci boppam dafa maa neex te dafa neex ñëpp nag kenn ku nekk danga war a yem ci li nga moom su ko defee jàmm danaan ñooy waa bi ci des nag mooy ma ñëw ci Racky yaayam xamoon naa ni juru ko ndax doom soo ko juree ëmb ko neuf mois matt ko ak matt ni mu métti wasin li mu métti doo ko def yenn yi bët bi yaay di xool doom bokkut ak bët bi mère bi di xoolee Racky xamoon naa ni juru ko noonu la mën a demee maa ngi kontaan bu baax a baax nag ci lu xew TV incha allahu dara duñu ci rëcc te fu ngeen nekk ñoo nga fa. salut salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi seetaan série bi la maîtresse d'un homme marié ak ñi nga xam ne ñu ngi dugal seeni vocal ci lu xew TV aussi maa leen di nuyu bu baax leen ñaanal jàmm leen ñaanal salaam. série bi mën naa ne série la boo xam ne dafa dolli daf ñu dolli lu bëri ñu ñi nga xam ne ni ñu ngi en couple daf ñu dolli ci lu bëri ci yërmande bi ñu war a mën a am par rapport ak jigéen ñi ñun góor ñi daf ñu dolli ci lu bëri ci doxalin bi war a doxal par rapport ak suñu soxna yi nekkal point bi nga xam ne bëggoon naa ko dugal rek pour audio bi bañ a sori concernant Cheikh Diagne kilifa la borom kër la yor ñaari soxna ñaari soxna yoo xam ne seen tempérament wute woon na jamono jamono yi dox ba seen tempérament doon benn maanaam tàng na ñoom ñaar ñëpp ku ci ne nag ak sa tàngoor fu mu toll noonu te moo gën a fësle mais moom rôlam fi mu toll nu dafa nekk rôle bu sensible maanaam fexe war a fexe dalal këram war a fexe jàmm am ci këram te lépp ci moom la war a tàmbalee donte jigéen ñi tamit am nañ ci part de responsabilité bu am solo waaye il faut ñu am bët buñ ko xoolee mooy bët boo xam ne bañ koy ruus bët boo xam ne bëtu respect la bëtu kilifa la jigéen nag ci sa défaut ci sa erreur chaque fois bu la ko jàppalee rek te xaw a métti tuuti pour mu won la respect pour mu won la. Euh, rusange bi ñuy wax noonu protection bi tamit faw ma am ñu sentir ne kii daf may protéger fu ma toll te protection du alal protection du jënd may sa soxna protection du lu mu laaj nga ne ko lii mi nii protection ci dalal xelam ci la bokk te benn point tey laa gis boo xam ne xaw na ma naqari tuuti concernant yaayam ba ko woowee téléphone fekk mu toog ci lalu ñaareel ba wax na ko wax joo xam ni ci ñaareel bi wax ju fetul la te foofu doonte yaayam la waaye waroon na ko xamal ni yaay ki ngay wax sama soxna la te am na kàddu yoo xam ni war ko wax sama soxna wax ko ci wax bu tegginu ba nga dépassé yaayam waaye foofu waroon na rassuré tuuti Marème foofu ndeysaan yaram dafay daw metit gi nga xam ne ndaw si na ko sentir foofu la Cheikh waroon na xamal ni soxnaam ni fi ma la teg fii la sama yaay am na ku ko gënal waaye man yow daa tànn yaay sama soxna yaay sama ñaareel lu tax ma gënale waaw man coin boobu daal la moon lu may joxe may jégalu nag bu baax a baax jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi la xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare waaw di wax ne maîtresse d'un homme moom macha allah neex na trop neex na trop kanta Cheikh Diagne moom ah Cheikh Diagne moom tooñ na moom wax dëgg yàlla tooñ na Cheikh Diagne warutoon a nangu ay jàmbur. même bu fekkoon ne day day ñëwaat day ñëw toog fi ndax doomam dafa feebar mënoon na dem mu toog mu waxtaan ak Marème Diagne peut-être Marème Diagne dina ko baal mais boo gisee moom moo manqué respect aawam waaw wax dëgg yàlla Cheikh Cheikh coow li yëpp Cheikh Diagne la waaw Marème moom xam na ni Marème daa capable waaw Marème moom deful dara waaye Kanta rakki nag moom ah foofu moom foofu moom beneen affaire la mais rakki nag cette fois ci moom tooñ. parce que bu mu ñëwee laajte ko ne lii lan la mënoon na ko ne ah dañ ma invité mu expliquer ko kooku xor rek la yore te def ko yërëm yërëm na ko yër na ko ni ko noonu mën naa am duñu yegg si fii dina ko xelal congé ko ba nga xam ne su demee du ci am benn lu koy jaaxal waaw foofu moom rakki moo tooñ waaye nag mu ngi jéggalu Moustapha tam nag bu dee bëgg gi dëgg la hmm, war na ko baal ah, waaye maîtresse de homme marié moom macha allah comme niñ ko daan waxee rek waaw toujours dama koy seetaan su ma ko seetaanut ci télé bi damay ñëw ci YouTube bi seetaan ko parce que bu ma koy seetaan dafa mel ni que man lañ nekk di jouer surtout rooru Marème Diagne ak jëkkëram dama ciy gis suma bopp dama ciy dund amoon naa taana xawoon naa ki am lu ma ci métti léeg-léeg parce que comme terme yu Marème Diagne ji waxee dafa ma doon xaw a daal du ma doon nekk en l'aise daal mais comme léegi lii moom macha allah kontaan naa ci trop macha allah kontaan naa ci gis naa ne audio yi ñu ciy yónnee da ciy def njëriñ parce que toujours bu ñu waxee rek affaire bi day change parce que xam naa Marème Diagne bu ñu waxul woon rek dina defee neneen mais def na lii wax dëgg yàlla si yar gis nga ko bu mu seeti jee gorom bi nu ko gorom bi waxee xam nga loolu moom ñëpp a ngi kii naan waru koon tontu lii waru ton tontu la mais man daal damaa gëm ne def dara parce que goro bi tam woo ko tagg ko xas la sa kanamu wujj tagg sa wujj wala ne la yow mii di xale yaa tooñ dëgg la nag mag xale fu ñu kiyee xale nga war a jox euh, toor bi daal ne ko yaa tooñ waaw mais nag moom na muñ rek bu dee sëy dong ko tax a jóg waaw dafa bëri nag coow li yëpp góor gi la coow li yëpp Cheikh Diagne Cheikh Diagne daal moo def lépp waaw maa ngi leen di nuyuwaat encore une fois di leen siyaare waat di leen dokkel ci seen série bi waaw di wax ne li xew TV moom macha allah ca kaw ca kanam. asalaamaaleykum waa lu xew TV maa la maa ngi woote bëgg a wax si film bi film bi neex na trop macha allah man de gisuma lu ñuy wax li ci virgule man gisuma ci dara dara dara Marème bu ñuy wax Marème rôle bi ñu ko jox rek la moo def nit ñi dañoo jaawale théâtre cinéma ak réalité kii rôle lañ ko jox te loolu buñ ko jox loolu lay def rek. diggante moom ak seex nag seex moom dafa war a matal soo takkee ñaari jabar moom foog nga yemale leen di jox kale ayem lu kii maram ñëw si kër gi moom moo ko def parce que bu yemale woon def yëpp mu yem di kon loolu problème du am dama seetlu ne góor yi ñoo dee indi problème góor yi am ñaari jabar ñoom ñii ñoo dee waral seen jabar yi di am problème parce que du ñu du ñu nangoo yemale diggante Reeki ak Moustapha Moustapha lu muy lu ñuy wone foofu mooy dégg nit ki boo leen di dem dem leen si dégg at nu mun a mel bu leen nobante wax leen dégg bi man de loolu laa amoon lu may wax film bi moom neex na trop man gisuma ci benn problème gisuma ci dara dara dara dara allah ci kaw ci kanam rek. asalaamaaleykum Lu Xew TV maa leen di nuyu bu baax di leen ziar baax baax baax. di nuyu waa Sœurs et Maîtresses di nuyu ñëpp di leen siyaar bu baax mbaa na a ngi rek euh, maa ngi ñëw rek si Sœurs et Maîtresses bi daaw 36 bi di si wax sama xalaat mais Marème Marème li mu def euh, li mu war mu war a def daal moom la def ndax. Euh, ayam la ayam la waaw li nit ki li nga moom danga koy récupérer danga koy jël waaw moo ko moom bu ko neexee dem jëli ko seex nag moo war a def yoon ndax euh, mareem warul aye mu ñëw kerlaal la naan dafiy reer dafa am ay gan moom dafa am ay gan na yóbbu gan yi kër mareem ñu reere foofu sinon mu wax ko ak mareem ba mareem d'accord si mu doog a dem mais du yoon muy dem pare mareem woo mu koy jaar mu koy jaay naqari waaw moo tax euh, Marème ne mu def ànd naa ci de kontaan naa si bu baax a baax nit day am fula day am fula bu baax a baax ndax bu ko seex ñàkkee woon kersa mu bàyyee ko noonu di jooy wala muy mu koy def xalaat da ciy sonn rek mais ni mu def daal noonu la daal ni mu def noonu la euh, di ñëw si yaayu seex tamit yaayu seex moo war a bàyyi ni muy doxale yaayu seex tee ngaa rek nga yem yemali say gore yow goro nga yemali say gore rek moo gën si yow. waaw ndax Marème amul problème de yemale sa goro yi li ngay wax Marème moom du yoon de ndax ñun moom dañoo bëgg Marème dañ ko bëgg waaw di ñëw si Moustapha rek Moustapha moom na toog rek déglu rek mais xam nga rek liñ ko def dafa metti liñ ko def dafa metti de ndax rakki da ko fen da ko fen da ko waroon wax dëgg bi avant muy dem waaw yaayu rakki moom yaayu rakki moom bàyyi ko foofu li koy ngi si yoon bi di ñëw maa ngi leen di jaajëfal bu baax daal dafa war di toog këram ak lu mënti jote ak jëkkëram na xaar ba mu ñëw mu lijjanti ko mais amul droit di dem ci kër kenn di dem kër laal la di am lenn lu mu fay wax te waxam tamit vraiment dafa ñagas na ko wàññi daal waxam dafa ñagas bi mu demee kër goro bi ni mu doon waxee moom dafa ñagas te jigéen dafa war a neex kàddu waa lu xew tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare leen jox seen wàccuwaay leen wax ni tamit film bi am na solo am na solo trop neex na ñu ngi koy suivre vraiment mais Marème comme ni ko ñëpp waxee rek Marème. salaamaaleykum waa série maîtresse maa leen ne di leen jaare àq di wax macha allah bi jàll démb neex na macha allah neex na trop série bu ñëw gën a neex di rafetlu maanaam si ni muy doxee nii ñu si siy trop. macha allah macha allah kontaan si trop billahi saa suñu ñëw rek bis série bu ñëw rek gën a neex léegi série bi moom maanaam neex na trop neex na trop te li ñu gën a neex mareem mareem macha allah man nga sa place te yaa ngi koy doxal maanaam kenn ku ne sa place rek mais mareem moom kontaan nañ comme ni nga doxee sa place ak euh, li ñu gën a neexal série bi mooy Moustapha ak Racky maanaam fi jaaroon ñu demee. ak euh, maanaam ñi rekki daa misére tolof tolof yi mu nekkoon Moustapha génne ko ci benn instant ñu séq ko ba tax rakki fàtte loolu lépp nekkaat beneen façon nit benn instant ni ni mu doxale nii démb si sérib démb bi moom metti nañu dara metti nañu ndax ak lu mu ci mën a doon day waroon a xool fi mu ko jëlee lëndëm bi mu ko jële woon yóbbu ko ci leer mu fàtte yu bari fu daa dem du nekk di toog ab chante bi moom kese xoolal danga ko dof dafa jële ko ci loolu lépp nag benn instant mu dundaat neex mu dundaat daal maanaam kon nag waroo ko dem di ko dëkk rek paa wala na fàttali ko woon dembam mais nag rakk yi fàttali ko ndax kon benn instant doxale noonu mu doxale ba Moustapha ko léegi suñu diggante bi dafa yem ñu daal mere nañ ko foofu torop Moustapha nag maanaam ñu ngi lay félicité di wax macha allah ngay doxalee daal neex nañu torop neex nañu te góor yi dafa war a am fulla ak fayda comme noonu nga ko doxalee mais monsieur Ndiaye moom yaa ma gën a xam kooku moom góoru ñaari jabar ndax ni muy doxalee noonu daal am na fi góor ñoo xam si neexu leen ñu ngi seetaan série bi daal mais daal tout leen neex ni muy doxalee góoru ñaari jabar dafay doon doon góor yàlla dëgg xam di doxal di def maanaam ne la war faa faa ñu la fekk di la sa biir njaboot ak sa doom di la toroxal noonu daal am na góor yoo xam si. met metti na leen daal si noonu doxale noonu mais Moustapha ak Racky daal moom kontaan nañ si moom noonu muy doxale Racky plané nga plané nga sama mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu nekk sa tur ak sa sant di ñaan yàlla suñu borom sama kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñëpp ak mbooloo mu jullit kii bi séeréer bi moom démb moom wax dëgg yàlla lundi bi démb bu neex na trop trop macha allah. man daal bu ma amee ku may kii moom yaay Cheikh Diagne ji moom moom laa xaw a mere parce que kilifa du doxalee noonu ndax Lalla ak kii ni ma leen gisee Lalla ak Marème ni ma leen gisee ndax Lalla léegi ni muy doxalee koo xoolee xam ne dama changé parce que Lalla xelam moo kii yoon rek mais bonul koo xool xam ne nul daal te Marème tam wax dëgg yàlla ku ñu yar la tam ndax bi yaay Cheikh Diagne ji wootee am na xale yoo xam bu doon ñoomaat dinañ wax loo xam ne day ëpp wala dara muy def ko Marème dafa ànd ak tekk ak tey. loolu moom wax dëgg yàlla moom kontaan naa si trop si Marème moom Marème daal am am nag dal daal mais yaay seex Diagne daal ni ma ko gisee moom moom moo nar yàq moom mais bu bàyyee diggante Marème ak kii Lalla man am naa yaakaar yàgg-yàgg dina mujj nekkaat si jàmm te Cheikh Diagne nga xam mooy kilifa gi moom tam mu jubal bu jubalee rek teg lépp si yoon ñoom ñaar dinañ dem ba jubal ndax men ñoom ñaar ku leen xool seen jàngat di nga xam ni dinañ mën nañoo dem ba ànd mais si kaw Cheikh Diagne jubal yaay Marème yaay Cheikh Diagne tam génn si yaay Cheikh Diagne moom ku si war a génn moom parce que moom li muy def du yëfi kilifa daal day yàq te kilifa dafa war a boole maire bi dafa war a tëddee njaaxaanaay loolu la war a def ndax nee ndey sax day tëddee njaaxaanaay mais maire bi daal ni ma ko gisee moom tëddeewul njaaxaanaay wax yàlla moom série bi neex na trop macha allah neex na nit ñaa ngi ciy jëriñu nit ñaa jàngat moom daal comme ni ma ko waxee woon rek dafa mel ni daal moom dafa mel ni daal da ngeen dugg si biir kër yi daal surtout Lalla moom ni muy kii waa Lalla ni muy joué dafa mel ni daal. ma daal maanaam gis naa sama bopp daal ni ma la ko mën a waxee moom gis naa sama bopp daal li des xel a koy ngeen jëf yàlla na yàlla suñu borom def jàmm ngeen dund ba am ay télé télé tele ñu leen di dégg ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñu leen fi dégg wax dëgg yàlla moom série bi moom neex na ndax day yeete te série li si am solo film yi li si am solo mooy mook théâtre yëpp yem daal li si am solo mooy nit di ci jariñu mais loo xam ne day yàq mu baaxul yéen a wax dëgg yàlla macha allah li ñuy def moom da ngeen di defar ku si bëgg ku bëgg a baax daal am na loo xam boo si xoolee am na lu bari loo xam boo ko demee ba koy def di nga ko wàññi daal wax dëgg yàlla neex na trop macha allah yal na yàlla defar lépp daal kontaan nañ trop moom